ngi leen di nuyu di rafetlu bi ak euh, ñun euh, ñu ngi fii nga xamante ni moom moo nekk euh, amokat ànd ak Serif Ibrahima Aidara nga xam ne nag ñu ngi yéene dem nga xamante ni moom moo nekk ca Louga ci ziar bi nga xamante ni moom la ñu jagle Thierno Mountaga Daha Tall ci loolu nag ngeen gis Sénégal yëpp tamit. ñëw fas yéene ànd ak Chérif ngir dem foofe nga xamante ni moom moo nekk ci Louga loole nag nekk lu am solo at mu nekk euh, mu di ko amal euh, loolu nag nekk loo xamante ni mbooleem géejawaay ak li nga xamante ni moom moo ko wër daañu ñëw ànd ak moom xam naa incha allahu rabbi lépp loo xamante ni dana fa tukkee daañu ci ànd ak yéen ci yoon bi ba foofe ca Louga tamit lépp lu fa tukkee ñu fas yéene ci ànd ak yéen ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ak ñun. yaa baax baax kuy mbindéef seedeel na la mbaax loolu réew mi xam na ko moo tax saa yu réew mi masi di yëngu maam da baax taxaw fagaru ñaan ci yàlla dara du yëngu réew mi daal nu saytu ko. Mame Hadj Abdou yàlla na ko bu. sopp da baax dolli leer fulal ko ko. Hadj say réew mi ma séddee yëngu. gaay say réew mi ma séddee yëngu. maam da taxaw fagaru ñaan ci yàlla dara du yëngu. réew mi dal nu saytu ko kii ab soom la yor daan fi ñëw ay diggante góorgëlu xew jëf na ciy jëfam ba mu aw ci lu baax mu roy lu ko mama haji abdu yàlla na ko buur dolli leer foo ko ko buur ànd ci moom ba di la ñaanal fii sëgg daan joxoon na la cër lu mu doon mu def la ca war góor ga daawul jaaxle ci mbir moo tax réew mi jooy na ko ma xaaji abdu yàlla na ko buur dolli leer fuloo ko ko xaaji abdu yàlla na ko buur dolli leer fuloo ko ko moo tax ay numaadi pamba jak saaw fu fa maa da baax ma sa ñëw dem defal na la yiw xadaraam giseef ko ama abdu yàlla na ko buur loxo ci dabax dolli leen fulaal ko ko xaaji abdu yàlla na ko buur rek dëkk fi maal bi lañ la waroon dugal mbaye. mbay kii ci maal bi la waroon dugal. dégg <laughs> nga kii ci maal bi la waroon leen di kon ñu ngi ànd ak yéen ci cortège bi ba tey ñu ngi fii ci Thiès fi nga xamante ni moom moo nekk fii ci kër di maxtar Kounta nga xam ni nag euh, day ànd ak ki nga xamante ni moom moo nekk Serif euh, saa su nekk ñëw euh, daal di dem fa nga xamante ni moom moo nekk ci Louga. kon rek ñu ànd ak yéen fas yéene toppal leen lépp lu nga xamante ni ci lañu ñu àndee cortège bi ni ñu jaare fi nga xamante ni moom moo nekk Ndakaaru Euh, jaar Gorom Mbambilor jaar Bayax Thiès euh, ba ni ñu ñëwee fii nga xamante ni moom moo nekk fii ci Cheikh Sidi Mokhtar Kounta kon rek mbokk yi ñu ngi ànd ak yéen di leen jaajëfal fa yéene leen a toppal lépp loo xamante ni mu ngi tukkee ci ziar bi nga xamante ni euh, ziar Thierno Mountaha Daha Tall la te ki nga xamante ni nag lañu ci àndal moom moo nekk kii di Serigne Serif. wa rahmatullah ni ngeen ko xamee rek ñu ngi toog ak sunu sang. Cheikh Sidi Mokhtar Kunta ñëpp xam ko ñëpp miin ko lool lool lool ci diine ji ak ci li nga xamante ne bii moom la yàlla nam fii ci àdduna bi yëpp euh, muy ku ñu xam lool lool lool ci wàllu xam-xam waaye ci wàllu taxawu njaboot fa tabaarakallaahu ñu toog ak moom nii bëgg koo laaj euh, ñu jox ko rek mu présenté wu incha allah bu paree rek ñu laaj ko yi ñu ko bëgg a laaj incha allahu rabbi sëñ Sidi bismillah ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يشفو قولي وقل جاء الحق وزق الباطل ان الباطل كان زوما حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا حول ولا قوه الا بالله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته xam naa li dañ ciy santaat borom bi tabaraka wa taala yokk ci li ñu santoon bu baax ndax nii lañ ko fi defe woon na gën i daaw yàlla may nu nu fekke waat ko ren di ñaanit sunu borom mu may ñu nu fekk ko at yu baree bari te rafetu fekke bi jaay saydi bu jóot sallallahu taala alayhi wa sallam bi day ziar boo xamante ne bi liggéey yu mag ñi la ndax ah, sunu maam Cheikh Omar Foutiyou ko yàlla nangul la yàlla barkeel na it ay mbiram may ko it may ko yaatu loolu nag mooy baawaan ba nëgë ni ndax moom bésu réew mi yépp la ndax diine bu fi demee ba egsi fi mu yegsi duñ ne ne lépp mooma de waaye lu ci ëppit ci mooma ndax da cee jaayante xare ci def ci lu ne firnde gi mooy tey jii ñi fi nga xam ne ñoom la ñuy tudde ne ñooy kennu diine gi tey ci Sénégal ñépp tey ci moom la ñu tibbe ba mu baawaan ba mel nii loolu rek dafa doy kon nag euh, ku yàlla baaxe ku ne nag namm ci yow mbaaxe di nga ci bokk looloo waral tey Chérif li muy doon doon it sëtu bi xam ne kii liggéeyal yonent bi ba yàlla jox ko léppit boo ko liggéeyalee liggéey la boo xam ne dafay delluwaat ci yow rek kooku ku nekk war nga ko liggéeyal loolu moo taxit yàlla boole na ko ak ba Bachir muy koo xam ne ci jamono bi ñu ne kenn werenteetul ay mbiram ku yàlla baaxe la nitu yàlla la te it wali yu piir la muy koo xam ne kon tey la yàlla boolee fi mu la boole boole la moom loolu ak yokkute dong la waaw lii moom yokkute rek la ci Chérif te nag nit ak koo mën a doon bu nu yaakaaree ci yow mbaax fii li koy firndeel mooy dangay ngay nangu am kilifa te def na Thierno Bachir kilifa Thierno Bachir nangul nopp ko te loolu yombul. kenn wacc de xol len rek te bu kenn wacc ok ci kanam la waaw Abdoul Aziz waaw bismillah aca hmm. na dem son bi rek waaw bàyyil son rek bu may dem ci góor gi rek nga topp ñu bu may dem nii rek nga topp man ndànk aca Toilet. Dan, wow. Dan, Dan, rek waaw kay. ndànk Ini malam kau leen balik lagi woon ba léegi gis ngeen bis benn ba léegi jeexagul kon nonula deme. oto yu ndaw yi jàll nañu bis yu mag yee ci des ñi ngi dem benn par benn ñi ngi ziyaara Cerno Bachir Muntaga Taha ci ndigalu Chérif Ibrahima Haydara Tidiane waaye mi ngi noonu couvent bangoogu kon tabarakallahu mi ngoog déedéet du du du azaka nag ci liñ la yéene matul sax azaka ci liñ la yéene ak liñ bëgg suñ diggante ak yow ci wàllu tarbiya suñ diggante ak suñ borom niñ ko daan defalee Mawlaaya Cheikh Al Hadj Aziz yaay moom ci ñun amul benn xilaaf ne yaay moom ci ñun moo tax dañ yéene luñ daan defal Sëñ Abdu benn incha allah dañ la defal fukk wala téeméer. waaw nga ñaanal ñu yàlla rek ak mbooloo mi nga xam ne waxtu wuñ leen ne jóg leen ñu jóg te ñun nag ñoom yàllaa ñu boole rek du suñ mbaax ñoom seet mbaax la ndax ñoo baax ba leen ne jógal ñu jóg kon nga ñaanalal ma leen yàlla ci sa barke ak barke bés bi ak ki sabab bés bi muy suñu maam Cerno Muntaga Daha Cheikh Oumar yàlla faj seen aajo faj suñuy aajo faj aajo jullit ñëpp ñuy ñaan yàlla it yow ci sa bopp yal nañu yàlla ruus ci barke sëñ Abdou ci barke alaaji Cerno Saidu Nuuru ñu topp la Cerno Saidu dundoon wala lu ni toll te bum yàq dala ci sa wér-gu-yaram nga dese wér ak kàttan yal na ko yàlla def ñu ngi lay baalu àq nag ci coono yeeg lépp fa tabaarakallah kii Sidi Maxtaar Kunta doomu bàyyi Sidi Lamine Kunta mu Njaasaan waaw kañ kaay kaay sëñ bi bàyyil te ñëw sëñ Souleymane kii nag boo gisee ma ne ko mu wàcc moo yoroon lépp sa soppe ba alaaji Abdoul Aziz Al Amin waaw kañ waaw kañ mu ngoog waaw kañ waaw kañ mu ngoog waaw kañ kan waaw kay moom laa dënk lépp lu aju ci kaar yi moom nii laa ko dënk jërëjëf aca tàllal leen mu ñaan ay kay kay si doomu sëriñ alfaxuma sama wala alfaxuma waaw mel kii doomam la mooy indi kaar yi kaar yi def caméra yi moom moo ko moom it suñu wëllëre la suñu lépp la incha allah tàllal leen ñëpp ne